kon ndokkeel ci maanaam bisam bii nga xam ni moom lay defal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ko def nag ci ndigalu ki nga xam ne mooy kilifaam di Cheikh Ismaila Diouf Nouroullah <coughs> eh, bokk bokk na ci délégation boobu nag Eh, maanaam ba ñu jógee ci délégation Cheikh Ismaïla rek dalal nañ fi délégation maanaam Cambérène ak Yoff eh, tabaarakallahu muy suñu mbokk laayeen yi bàyyee ko maanaam ca maanaam xalifa ba eh, tabaarakallahu ki nga xam ne moo jiite délégation bi mooy sëriñ Ndiasse Cissé tabaarakallahu ànd ak tamit oustaz Ibrahima Jonn waaye ànd ak maanaam ay soxnaam yi mu bëgg a jottali sëriñ bi ay kaddoom lii nag mooy lañ leen waxoon rek suñ Cheikh Ndigal daa doon koo xamante ne nii diina yàlla ji daal moom moo ko ñor l'islam moom moo ko ñor fu waaye mën a nekk rek di yëngoo l'islam suñ Cheikh Ndigal bàyyi na la xel kon sëñ Ndiassé bismillah bismillahi rahmaani ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen bismillah di leen siyaara ci turu sunu xalifa euh, sëñ Mamadou Makhtar Laay ibnu Seydina Ima ah, Seydina Mandione ibnu Seydina eh, Seydina Limaamu ak El Mahdiyu muy jaarale ko si doomam ji ñuy wax Seydina Laay nga xam ni moom la fi way juróom jiitu bu yàggul di Serigne Abdoulaye mi ñëpp xam eh, moonu yebal ni nañu egg si fii siyaare si góor gi Cheikh Ndigal Seen mu baax mii nooru ni xamal ka ni ka xate gi rek ak yitte yu bari waaye bu neexee yàlla bu yoon jeexul waax si lu jeex dinañu def beneen yoon délégation boo xam ne incha allahu si karas laa yéene xadd si suuf xadd si kaw ak si fii si dëkk bi bu soobee yàlla ak yonent bi ni kon ñu ngi lay siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay di la xamal ne nun nag danoo danu di ñoo xam ni maak jon jonn mii ak ñeneen danoo sañul a bañ sa mbir ndax li nu gis nga jëf ko si diine li nu gis nga jëf ko si lislaam macha allah yal na la ko yàlla fay yal na yàlla dolli suturay yal na yàlla dolli sa martaba euh, incha allahu dina am incha allahu dina am ndax Seydina Limaamu Laay mii sunu yaakaar nga jël sa dara tudde ko loolu rëy na si laayeen gépp jottale naa leen ko ba ñëpp jot nañ ko kon nag alhamdulilah bu soobee yàlla bu yoon jeexul wax si li jeex nu ngi lay gërëm di la sant di sant sa njaboot sëñ Baara mii nga xam ne moom la ñu nekkal mm-hmm. ca Cambérène mm-hmm. yàqu si dara mm-hmm. lu jóg ba si bi sëriñ Ablaye nelawee nga boole ko ak sëñ Moustapha mii nga xam ne amul amul benn kiñaan jotal ba bëgg dee ñoo ànd dem ba si sëriñ bi ñu jaale indi seen teraanga kon nag loolu yow a yal na yàlla yàggal ko jaay rasulullahi xam naa xate na li nu façon yëpp bari na waaye nu ngi lay ñaanal daal li nuy ñaanal xalifa bi yàlla na nga fi yàgg te wér salaamaaleykum wa sëriñ sa kàddu yi rafet na lool bu ko defee kon ay waay yéen ñëw gi rek doy na sëg macha allah na fii lii dina jot ah lii dina jot xar na naa ten bay mbat na fii lii fii ah.